Kandji maa ngi lay nuyu. jërëjëf Ndeye Comba auzu billaahi mina seytaani rajim bismillaahi rahmaani rahim dañuy sant yàlla bu baax julli ci sangu-sang yi Seydina Muhammad ngërëm sunu ñaari wayjur di ñaan suñu wayjur bu góor suñu borom ngërëm ko xaraf aljanna ak bépp way dawlu bu mu fa fekk di jaale sénégalais yi suñu imam bi nga xamante ne bi moo fi jóge muy imam Ndaw yal na yàlla yeesal yërmandeem ci kawam te xare ko aljanna di ñaan yàlla nag màggal bi ñu dugg jug jëgmal ñu dugg ceeg na bisimilahi rahmaani rahim génn ceeg alhamdulilahi rabil alamin yàlla def ñu dem ak jàmm ñibbisee jàmm te képp kuy dem tamit nga xam li yóbbu li la war a li la yóbbu ki woote woon màggal gi li taxoon mu woote ko dina yombal dem bi ba tax boo fa demee ngërëm lañ koy yóbbu nga am ko mais dem fa demakaay boo xamante ne bi da ngay kër-këri ba sonn te boo ñëwee doo fa jëlee dara loolu yàlla nañ ci yàlla musal kon nañ demee ak xel te yàlla def ñu dem ak jàmm dikk ak jàmm di nuyu ñuy seetaan à travers Bantamba TV di am contentement trop toog waxtaan ak yow ndax xam naa ne waxtaan la boo xamante ne njariñ dina ci génne ndax dimension wu nit ki soo ko mesuré. su ngeen tegee émission war na mën a nekk loo xamante ni bi ça sera à la hauteur. merci beaucoup Kandji Kandji wax nga jaale nga wax nga si euh, màggal Touba bi wax nga si safar gi mbënd bi nag xaayu mbënd bi na laalu la. waaw mbënd bi xam nga xel mooy fàttu. waaye wax dëgg yàlla mbënd mi moom même bu la laalut yow fi nga dëkk mm. laal na koo xamante ni day mel ni laal na la ndax genn golo gudd na mais loo ca laal ñu yëg mm. bu touché benn sénégalais mel ni touché na ma loolu tam euh, ñu def nañ ci liñ man ñu nit ci loo xamante ni bi en douce ñu def ci liñ ci man jàppale ñi mën a jàppale ndax daanu dajut suuf mm. di wax ne tamit nit ñi gën a kenn ku ci nekk xam nga ndey Kumba à chaque fois damay wax ne Sénégal dafa soxla solidarité nit ñi jàppalante kenn ku ci nekk koñ ba nga dëkk wala boo xamee ko fa dëkk nga mën jënd sax benn moto pompe nga def ko état bi tam gën a veillé ci loolu gën a dimbale nit ñi parce que nit ñi soxla nañ ku leen dimbal jamono bii ñu toll di masawu ñi nga xamante ne bii ñoo nekk ci mbënn bi di ñaan suñu borom jeexal ko te xam ak ñi ci ñàkk seen bakkan ñu koy jaale seen ay mbokk di ñaan yàlla yërëm leen xaral leen àjjana di masawu ñëpp di ñaan yàlla nag ndox nag xam nga xéewal la mm-hmm. te ki ko fi indi kenn sañu ko wax dara kon dañuy sant rek def loolu jullit mooy sant yàlla rek mm-hmm. Mm-hmm. mu des tuuti comme que mooy actualité bi muy màggalum Touba bi ñu ngi nekk si 18 safar bi euh, ngi dégg keroog porte parole bi di wax euh, di araftu surtout nag suma mbokk jigéen ñi par rapport ak ñi fay demee ak ñi nga xam noo yor selfie yeeg greffage yeeg xef yeeg ongle yeeg sense yi xam nga léegi moom laa lay wax dama ne maanaam ñii tëb di dem nañ fexe xam li leen di wut li ñuy wuti d' abord dama mos a dégg Serigne Cheikh Tidiane si almaxtum wax wax lu am solo nee na bokk ci coow li xam li waral coow li da koo gën. bien sûr ndax mbir mën nga jug di ca kër kër yi te fekk amoo ca benn njariñ sëñ Mbay Jaxate dafa mos a tëdd am ku koy bës benn taalibe fekk mu am benn taab taalibe bi di ko bës ba toj taab bi léegi bi deret ji génnee nag mu daw dem. Mm. mu woowaat ko mu ñëwaat bi mu ñëwaatee nag sëñ bi dafa jooy mu ne ko looy looy jooy mu ne ko xam naa ne bés bi nga bés ba génne lii lii taxul woon a jug bi ngay bës may may def effet da nga jàpp ne foofu mooy metti mm-hmm. moo tax nga continuer ngir defar waaye nag mbaaru suñu digganteek sëñ bi nii la mel ne ca dara di ca kër këri te sëñ bëggu ci dara loolu nag li koy waral mooy nga jug di màggale te xamoo màggal gi ki waral màggal gi lan la def ba am lii mm-hmm. ak lan la ko wootee nañ ko sant yàlla ñëw bernde nañ ko sant yàlla lu waaye mën a jàppale nga jàppale ko mais ñëw dem Touba solo summeeku selfie jumaa jaa ngi nii nangam a ngi nii loolu taxutoon borom woote nañ ci gën a bàyyi xel di ñaax rek ndax ak màggal validé teg ay lekk ah di selfie ak yooyu noonu sax xamuñu ndax li ñuy def méngoo naag loolum déet mais dañuy gën a ñaax nit ñi rek ngir ñu gën ci bàyyi xel ndax daal vraiment dem kër kër yi ci dara def ci ay fan ñibbis te jëriwoon ci dara ndax sëñ biit nag kenn ku ci nekk bëri goog tiir la na nga ko supporté noonu ngay tooyee. nañ fexe nag jéem a sëpp sëpp bu baax ngir ñu mën a tooy tooy bu baax. Hmm, xam naa nag euh, émission bi nag ñu tàmm di dégg ay wolof euh, bu xaw a jaxaseeg français bi yoon moom dinañu xaw a kontaan ndax kàllaamu wolof yu. yu xaw a yéemu la si teg léegi soo ko mënee woyofal rek parce que dégg-dégg bi des fois dafay xaw a dis trop bu leen fi fekk si kàllaama tubaab bu yéeme nag yooyu du woyofalal tubaab yi <laughs> gis mooy kañ lañ ko gisee woon ci année 2006 2007 2008 ba laam ñu am ni comme nga ko waxee bu muy gën a neex ah euh, combat yi xale yi espoir yi neex kañ ñu gis ko si moom Assane Ndiaye Aziz Ndiaye ah ak ñu euh, tuddee sax am na keneen ku fa nekk def naa sóoyu bu su ma juulee mm-hmm. ñoom ñëpp nekkoon si mais dañoo jikk-jikk rek kañ daal nekk tekkatu chaise ranger les bâches. <laughs> indi suuf <laughs> dagg cité. <laughs> kanji la bu xew jékki-jékki rek nga jël sa carte euh, licence promoteur xotti nekk si suuf beeg chaise yeeg bâche yeeg dagg ticket di jàppale gars yi. waa xam nga làmb nag. ndax dëgg yàlla ñun biñ ci dugg dañ ci duggoon par passion. Mm. yàlla dafa dogaloon ñu dëkk foo xamante ne bii ñun fa dëkkaloon ay nitu làmb lañ. ñoo ñu inspiré ñu ci virus bi man dama daan def su ma même si may bi may jàng su ma sama papa xëyee jox ma 200 wala téeméer damay jël 100 francs yi ma denc ko ci kontaan su ma ko defee lundi ba vendredi 500 la bu dimanche ma dagg ci biir demee sàll man làmb plaisir laa ci la la la ci man dama ko bëgg. beneen bi ci des mooy bi ma ciy dugg dama ko duggee woon parce que dama jàppoon ne lii lu ma bëgg la man je n'ai jamais imaginé dox sax bañ naan kii mooy kànji kii mooy tëgg kii nangam nangam. xaalis bi tam xalaatuñu woon ne sax mun nañ dem ba am ci yenn xaalis dañ ci demoon ak bëgg-bëgg. Hmm. ñuy dox di dox di dox ba gis ne lii bunt la boo xam ne war nañ cee mën a am dara comme ni ñu jàppee suñu magasin ñu nekk ci di liggéey di liggéey di liggéey ñu dem ba benn moment nag làmb da ciy dugal un million. mais non seulement waxuma sax pour nga jotaat ci un million yi mais coono bi nga ciy daj door cee jot nit tam man dama jàpp ne doomu aadama bu ci nekk. lépp loo nekk ba def ca fukki at ak juróom mm-hmm. war ngaa mën a taxaw def li ñuy wax taxaw seetlu xool li ma jugg man ci quinze ans yi fan la ma jëlee fan la ma yóbbu lan laa ci am loolu c'est très important parce que nit su dul def loolu rek pour mu réer da ko yomb yàlla dogal ñu def rétrospective xoolaat jour bi mu amee quinze ans ci làmb guddi googu laa toog xalaat daal di waa man quinze ans yi ci làmb lan laa réaliser ci loo xam ne mën nañ ne lii bien la boo xam ne kàññi moo ko teg dara kon 15 ans làmb amuloo dara loo jëlee lii xaas làmb moo a ko jox. loo xam ne dama ci réaliser dara xam ne lii làmb moom ma ko jox oto tabax si kër. non xam nga ñun suñu borom dimbali nañu comme ñëpp. bien sûr ndax ku xeebut sa noos di te benn part dafa ma doon wax ne kaas yee wuute mais ku xëy ndékki yàlla dimbali nañ ñun avant ñuy dugg si ci làmb sax amoon nañ loo xamante ni mën nañ ko suturloo suñ bopp parce que ci la loolu lañ daan di dugg ci làmb mm. mais boo xoolee même ci li ngay tëgg combat jeex doo mun jël ne lii jël naa ko investir ci lële da nga daan def boo jëlee bénéfice ba nga am nga boole koog la nga yoroon tëggaat beneen combat tëggaat beneen combat nga dem ba làmb bénéfice ba nga ca daan am mënatoo ko ca am nga dem ba ca làmb la nga ca daan dugal sax pour mu génn c'est tout un problème bi ma defee xalaat boobu nag def taxaw seetlu ma ne non seulement man liggéey bi ma yàlla may su ma toogee rek concentré wu ci sama bopp man na maa am lu ëpp fuuf li may bëgg def eh, ci làmb donte nag làmb bëgg-bëgg la ci man waaye nag jëndee fukk jaayee juróom taxutoon ma jóge Bawol ñëw fii dama ñëw fii lépp lu may dugg jàpp ne lii war naa ci mën a dem ba am ci dara war naa ci mën a dem ba réaliser dara wala ba dimbali ci ay nit bi ma demee ba affaire yi commencé ngay dugal du métti sponsor amatul et cetera ma ne nag làmb du lekk du naan du farata du sunna naa continuer nekkaat sa métier ma nga xamante ne bii moo taxoon may tëgg làmb te ma boole woon koog làmb te ndeyku ma làmb dafa fiir lépp loo ko booleel day dem ba bëgg nangu loola. te boo xoolee liggéey bi. moo ëpp doole ci yow ci coté financier moo ëpp doole ci yow donte les loisirs la boo xam ne da nga ko bëgg soo liggéeyee ba vendredi samedi dimanche soo ci nekkee da ngay sentir ne am na leneen lu bokk ci yow mais loolu nag nga dem seetaani yaakaar naa moo ko gën ka ngay jël sa xaalis ci dugal muy dugg te du génnaat mm. loolu moo waral ñu jékki-jékki suñu carrière promoteur ñu sàn bàyyi ko waxuñu bàyyi nañ bi parce que dans la vie il faut jamais dire ndax ëllëg damay bañ bu subaa ma waxaat leneen ñi may waxal daan ne kii du nit dëgg parce que moo ne woon nangam mais pour l'instant depuis cinq ans gi nii yoo xam ne bàyyi instant bàyyi nañ tëgg làmb. instant bàyyi baa ngi bëgg a yàgg de. non non <laughs> bàyyil bëgg. ba magasin kenkay ba tëjul. non loolu la am na ci loo xam ne même su ma ah, demoon naa si xaalis nga doon tibb di dëgg si am na ci loo xamante ne même su ma demoon ba bëgg koo def sama mbokk duñ ma ci seetaan bien sûr ndax nag mënu ma yor dara taxawal ko ba mu taxaw entreprise famille noonu man sama entreprise bopp laa yore ah yaa ko yore woon maa sa bopp waaw sax moo ko moomal waaw non boobu bokkut ak bii bi ma yore hmm. boobu beneen ah kon ko yow ah, macha allah ah kon ko yow léegi yow tu es riche ah, benn magasin la woon fee sàng nag léegi nag am na yeneen yu mu yor non xam nga man lan laa gis ne mooy richesse hmm. mooy xool bu baax bien sûr ndax suñ borom daf ne ëllëg yomal xiyam lu fi waay indi luut xool bëgguma nit yor na ay milliards te bu waxee nga xeeb ko mbaa bu génnee nit ñi xeeb ko nit ñàkk naa yor dërëm te bu xëyee nga am soxla cent millions bu la dugalee ci ay nit génne jox la ko richesse du alal ci man mais làmb dama gis ne dafa dem ba commencé di yóbbu ci man loo xamante ne bii man na ko fee bàyyi te ma continuer di servir làmb continuer tam di bëgg làmb. maanaam laa teg ay chaise ak indi ay suuf ak yooyu. jàppale ko promoteur jaay ticket ak yooyu. xam nga loolu tolluwaay la tolluwaay mooy man ma ñëw. Euh, sàmbay tëgg ma taxaw ci port bi daggal ko tike téewumaa doon kànj téewumaa doon Moustapha mais li ma gis mooy kii sama nit la day soxla bis mën naa koo jàppale ci lii te du ma wàññi dara parce que nit ñi taxaw di dagg ay tike ñu leen di fay man gënuma leen donc lan moo tee bu saam tëggee wala bu keneen tëggee xalaat ne mën naa ko ma dem yenuy siis ñëw tegal ko ma dem taxaw ci porte daggal ko tike y a aucun problème là-dessus mais sénégalais jël benn mbir yóbbu ko foo xam ne yóbbu yow nag soo nekkul. ah kenn xamewu la woon loolu kat Kandji. non Kandji kat promoteur jékki-jékki dagg ay ticket teg teg ay chaise indi ay suuf léegi non kenn la loolu. mais la loolu xam nga Ndeye Coumba loolu c'est pas quelque chose de méchant. non mais xamee fekkee non non mooy tëgg làmb. waaw kay mais booy tëgg làmb tam dem ba gisatu ci sa bopp nga bàyyi bu sa nawle tëggee sañ nga ñëw jàppale ko. ok jàppale bi nag ça que tey su ma demoon ba sentir ne war na maa def loolu mais man boo ma fekkee naan kii du kañ Mm. maçon yi niñ mënee tabax dama ko man comme ñoom. macha allah parce que loolu tamit loo te et gis nga je ressens du plaisir promoteur tëgg ma jàppale ko ay siis tegal ko parce que je cent sentir que ni man ni ma toll laa defee. mooy man li ma xam mooy jàppale nit te yàlla tax su paree ma taal sama dem ñibbi. ok kañ yi gisoon nañ tamit sa organisation wu ay soirée spectacle yooyu léegi tamit loolu def naa ba ko def xamu ñaar nga. bàyyi non non loolu Wally Seck tëgg fois grand maanaam cinq années yi nga toog. cinq tëggoo làmb. non non même ci biir tëgg làmb gi. boole naa ko Siri Diop tëgg naa ko benn loolu li ko waral mooy dañ ne Kandji production c' est une de production de spectacle war nañ mën a tëgg làmb. tey spectacle bi léegi ko si yokk Kandji production la woon point làmb. spectacle moom bi nga commencé tëgg wala. Ah, commencement bi moom. Kandji production. non mais làmb ko taxoon jóg. non na nga dem ba si biir. nga ne lii sàpp ma rapporté l'argent nga dugg si def si xaw ma lan kaani production ak xam nga événement xaw ma loo ko noonu ba tey changé bu kaani production ji rek laa bàyyi mais dama ne nit mënul commencé ci dara taxawagul ngay ngarale da ngay bàyyi ba li ngay def nga xam ne lii am nga ci maîtrise ci ci si bopp xam-xam nga door jëm élargir leneen bi ñu tëggee làmb di tëgg làmb ba xam ne suñu borom dimbale nañu xam nañ ñeneen ñi ci showbiz bi ñu xam ne bu ñu tëggee Wally Seck mën nañu apporter dara ñu commencé itam élargir ci loolu parce que loolu lépp yaatal la woon rek mais soirée moo gën a dox téeméeri junni yoon làmb mais soirée yi dama dem ba man sama liggéey mënatuma ko boole ak soirée. ah yow kay yow làmb nga ne. non non sama liggéey yow yow liggéey bu xanaa war naa diis di. non non soo déggee may na làmb làmb du question sax ay day yàq day da ci am dara. te nekkatuma ci loo xam ne dama ciy daw te dama ci am dara man su ma xëyee war a xëy sama bureau bi war a liggéey te li may dox mënuma ci am dara je préfère toog sama bureau ba ngoon jot ma taal sama dem ñibbi et mag daa war a nekk ndawalal guddi nag bëgguñ la dajutin nga daj sa bopp soirée yi dama dem ba benn instant moo ëpp xaalis téeméeri junni yoon la yemuñu sax ci yi ma tëgg Wally Seck man moo ëpp téeméeri junni yoon mais tamit nit da ngay dem ba mais kumba euh, nit ñaanul yàlla nekk ci làmb di ko tëgg ba ñu ne la dee nit ñaanul yàlla di tëgg làmb di tëgg làmb ba kañ nit da nga ñaan yàlla nekk ci benn mbir di ci yëngu di ci yëngu ba pare ñun xanaa ñun nii yëngu sax xanaa léegi nu bàyyi ko bàyyi ko di ci yëngu ba mu yàgg nag nga jékki-jékki nag bàyyi loola jàll ca leneen loolu mooy avancement wu nit ndax àdduna escalier la soit boo xëyee tu franchis des paliers te yàlla nañu yàlla dimbali nag ñu bokk ci ñi nga xamante ni bii dañuy franchir ak ñëpp ñuy tëgg soirée ba mu yàgg nag soirée yi tamit munoo xëy 7 heures di liggéey di liggéey di liggéey di liggéey ba 9 heures wala 20 heures man damay guddee wàcc nga wàcc sangu nekkaat ci showbiz bi parce que ñu ngi ciy liggéey ñu ci ëpp guddi gi la nga leen di mën a gis nekkaat ci nekkaat ci ba 2 heures du matin xëy bëgg bu yàggee da ngay craqué mm. nag loolu lépp li koy indi mooy liggéey bi dalay ëppal solo mm. bu la ëppalee solo rek nga stand by yooyu yëpp concentré wu ci sa liggéey parce que xaalis gënul xaalis kanji day may bàyyi ma sama émission ma <laughs> kañ de bàyyi ma dugg dégg ay question Euh, kañ yi bilan saison bi ñoo ko gisee. mu ren surtout après sorti ki nga xam ne mooy Birasé bu ma génnee daal def su bilan boobu ba génn gars yi il n'a pas arrêté comme on xam nga man nag c'est maa ngi ko doon wax benn journaliste barki démb ba ma doon interviewé malheureusement dégluwuma bilan wax dëgg yàlla su ma la waxee dëgg. dégluwuma li mu wax parce que boobu mi ngi ma fekk. surtout sa affaire xaas bi nee na parce que euh, jox na côté bu mu doxee xaas yi mu jox arbitre yi nee na parce que distribué na parce que 37 millions si ay arbitre pour arbitre daal maanaam xaalis yu ñu cachet yu ñu jox arbitre yi bon ñu bëri nañu rek loolu mënul nekk. waa xam nga Sénégal leen rek moo ko yàq kañ day ñëw nekk ci bâtiment dem fekk ci médecin ba ca hôpital ba di weranteeg moom. <laughs> su fekkee c'est lui le tutelle ça veut moom mooy président mooy personne morale président CNG bi moom moo xam la ñuy def parce que CNG tamit il faut ñuy xam ne xam nga Ndeye Kumba làmb dafa nekk loo xamante ne bii il faut nit ci làmb di am benn doxalin bu ñuy doxalee pour nit ñi di xam ne ñii duñu ay dof CNG boo demee da nga fay fekk ay personnalité yoo xamante ne bi ay ngandi société lañ yor jiite ay nit je peux citer un Issa Ndiaye Abdou Aziz nga xam ne ay expert comptable la ñoo xam ne ngan di société la ñuy redressé ñooñu mënuñ nekk ci benn mbir ñu def bilan ba pare ñoom ñu ne lii lañ def lii lañ def jox ki nga xamante ne bi à kii de droit mu publier loolu kànj mi nga xam ne xamu ci dara taxaw di weddi au contraire gis nga ne ndey kumba weddi nit par presse interposée dafa metti bien sûr parce que yow li ngay wax non seulement maîtriser woo mais rapproché ko am nga opportunité bi. bien sûr rapproché ko bind correspondant ñun on veut des justifications nangam ak nangam su fekkee yow lañ war a justifier dañuy justifier su fekkee war la justifier na nga xam ne yow fi nga war a yam yam fa rek jeex na. arbitre yi ñoom bu fekkee dañ ne def nañ nangam ci ay arbitre donc arbitre yi kese ñoom ñoo am habilité wu taxaw ne lii def nañ ko ci ñun wala defuñ ko mais kañ ñi mënul weddi nañ ko ci arbitre parce que xamu ci dara. keneen nag keneen ku ko def na da ngay ay coow. te ñun suñu objectif dëgg et pas pour di nekk fii sax naan Bira Sène lim joxe ci xaalis waru koo joxe est-ce que dugal na fi lii est-ce que deful lii ñun xam nan la waroon def. Mm. jéem a seet nan lañ leen mën a ñoom CNG encadré ñu fi nekk ñëw tey bees jàppale leen. jubbanti leen ah ñun parce que budul dara Bira yoroon na CRG bu Thiès. ñun ñu nekk bu Kaolack autant pour moi ñun ñu nekk Ndakaaru di fi tëgg kon bu ñëwee suñ fusionné moom expérience ba mu yoroon ak expérience bi ñu yor bu fekkee bëgg nañ làmb dem kan mais loolu du am problème pour affaire yi mën a avancer. Mm-hmm. ñëw na si bilan saison bi par rapport ak ren mbër yi tëgg mbër yi bëri yi ak espoir yi ak VIP ndax lu ma seetlu mooy à part ki nga xam ne mooy euh, Modou Lo Ama ah ak Tafatine non non Tafatine doy na ñoom kese noonu noo bëreewul si VIP yi. waaw loolu li ma ci seetlu mooy promoteurs yi ñoo nga bëgg dëggantaan Ndiaye mën nañ ko. mooy fay mbër koy promoteur yàgg nañ ko seetlu yàgg nañu seetlu espoir no indi xaalis de. ndax ay Ibrahima Diop bi ay espoir yu neex lañu daan tëdd. non soo xoolee ren espoir yooyu bokkul ak ren ndax li tax bokkuñ mooy dañuy gis benn boy boo xam ne deuxième combat la bëri par rapport ak ni muy mobiliser instant bi ñu jël ko jox ko grand combat. donc ñoom ñi ngi commencé yow ci këni mbir mi du Boy Niang wala du Ama Baldé wala du keneen ak keneen mbir mi affaire bi chiffre d'affaires la ki la mën a indil xaalis rek ndax yow boo daaxoon a bëri jinne te mënoo mobiliser ñaar nit ba njariñ la ci promoteur bi am ah? amul mm-hmm. benn sens donc ren gis nga ne promoteur yi ñi ngi commencé di jël espoir yi di leen génne di leen may loxo te et puis loolu mooy tax làmb am relève loolu mooy tax ñu mën a assurer relève bi ñi ci suuf ñu wan leen ne yéen itam ñi fii nekk mën ngeen fa nekk fi ñu yóbbu mën lañ fa yóbbu ngeen oser tëgg combat yu neex mbëri teg ko ci yoon mobiliser promoteur bi am ci dara lamb continuer da mhm. nga gisee tey jii ki nga xam ne mooy balaa may egg si combat yi sax euh, combat bi nga xam ne moom mooy Modou Lo Ama Baldé yow tey en tant que promoteur combat boobu su fekkoon yaa ko tëgg yow na ngay bàyyi ñu lekk sa avance nga def ko nga jox leen ko wala da ngay trouver beneen solution parce que ñetti at ñetti saison combat yi mënu fexe ba taxaw. non xam nga àddina moom kenn ko ci nekk wax dëgg te yàlla tax. xaalis bi Luc Nicolaï investir ci combat man du ma ko investir ci combat di bàyyi mu dem. ah da nga xam ñaata la si investir. man xam naa ne il a mis de l'argent là-dessus te xam ne loolu xaalis bu ndaw parce que mbëri jot nañ avance def na ci yeneen frais parce que ñun dem nañ signature de contrat Toglou et cetera et cetera te loolu rek ay frais la donc loolu nit mënu ko investir ci dara nag nga xam ne mbir moomu da ngay jël nga ne dañ li ma gisoon man làmb dafa manqué air de solidarité. maanaam. jàppalante da cee manqué. ah si diggante ñan ak ñan. non ñëpp. ah bu ne ñëpp kay. non xaaral ma wax la rek Ndeye Comba man lépp lu ma la. presque bokk man argument bu ma la wax mun naa ko. non soo nee ñëpp xam nga dafa laaj. ek secteur yëpp la presse bi da say bokk déjà ndax man si presse bi laa bokk. moo ma lay laaj man soo ma bàyyee rek argument bu ma la wax ma argumenté ko. ca demal tey moment bii ñu toll nii au lieu ñu nekk di wut ay faay lu nit di ko laay def lii wërta am lii wërta nangam bu doon dañu def bloc. autour de Modou Lo Ama Baldé Luc Nicolaï jéem a xool combat bi ñun ñëpp nan lañ koy sauver. mais ñun ñëpp mooy ñan promoteur CNG mbër. su ma la ñëpp kenn génnu ah déet parce que kenn ku nekk ci ñun moteur nga ca domaine ba nga nekk. yéen kay yéen promoteur yaa ne woon Sodaata kay jéem ko jàppale yéen. promoteur bi kese doyul. yéen promoteur yi. non promoteur yi ak managers yi. xoolal. yéen a sekk laa promoteur mënul def. le presse àndul parce que bu ngeen ko génnewul nit ñi duñ ko xam. te euh, am raison bu tax ngay dàq. ah kooku day dem face à face day dem open presse. ah day interviewé xam nga man dafa am loo xamante ne mun naa ci wax am loo xam ne ah, mun nga si wax te ndax si làmb ji nga bokk. waaw li ma mën a wax man. mooy promoteur bu ci nekk la ngay séq ak nit ba tax nga ne kii tugg sama làmb loolu yéen ñaar yéen a ko xam. mais Ndeye Comba man man ak yow mënuñu ñëw def interview may la demal samay mbër nga jëli samay mbër def ci liñ ci war ñëw ci esaat may la doo dugg. am na man laa wax. Ah, man mënu ma loolu leneen la ci am ca diggante ba nag parce que chaque jour day am des nood yi yoo xamante ne bi da ciy am te man dama ko xam yow doo ko xam loolu nag soo ci duggee rek mën nga juum parce que la ne biir doo ba pare nit ñi dañuy signé ay contrat yoo xam ne contrat yooyu da di tënk contrat yooyu nag soo ko signé te liiroo ko wala xooloo la parce que da ci am ñoo xamante ni dañu man contrat point d'interrogation point de nangam nangam dañ la ci indil ay problèmes yooyu loo ci jéggi ñooy la lii wër tam lii moo. diggante kan ak kan xanaa moom. dañu waxoon que Luc moo amoon si ay tolof tolof la nekkoon mu génn si tolof tolof yooyu Covid bi ñëw mu génn si Covid bi Modou Lo blessé mais soo seetee tamit combat bi ay. ay loo xam ne comme li ñu wax rek ay ndogalu yàlla moo ko bloqué mais ah, du du xam su waxee dañ ko war a defar ñun ñëpp nu manko mais soo leen manko te mbër bi blessé soo leen manko covid ñëw loolu loolu nag moom liñ si dam lay solution dañ ne ma question bi boo ci dee si waatee dañ ne ma ndax su doon yow yaa ko tëgg xaalis bi koy may mbër ah waaw mais dafa yàgg ñetti at. waaw léegi nag comme nee nga yàlla moo ko dogal kay da ngay nangu ne lii yàlla moo ko dogal ñu ànd ñu xaar ba yàlla dogal ko ñu àndandoo bëri parce que gis nga Ama Baldé am na combat war a bëri février. ah moom kay CNG da wut jël solution. waaw leen ñu dem. non loolu règlement bi nag. ah bien sûr xam nga ndey kumba CNG man fenn rek laa leen di fàttalee di leen ñaax ci benn mbir dañu war di woo composant yi di leen fàttali règlement bi lan la tënk ak lan la tere ak lan la bàyyi. xam nañ ko de manager noo war a wax règlement bi mbëri yéen ñi promoteur xam nga règlement bi waaw non non xam nga boo déggee ma lay wax loolu ça veut dire ñun rek ñu xam ko doyul manager yi xam nañ ko du ñun kese non xam nga yaa ngi dégg ñu léeg-léeg ñu souligner benn cas te fekk loolu règlement bi interdit woon na ko te nit ñi xamuñu ah bien sûr léegi loolu nag dafay baax ñuy woo mbëri gis nga dama ne làmb dafa war dem ay atelier woo benn ndey kumba faal nga xamante ne bi te gis nga il faut ñuy nangu ne ndey kumba suñu borom daf ko ci métier bi mu nekk Ndeye Comba tey war na mën a jël oo ay rakki journaliste ñu boole nag moom mu leen defar ay atelier làmb il faut faire si il faut sa laa lii nga wërta def lii wërta def mais léeg-léeg da nga ciy gis ne dafa bëri lu ci rax lu ci bokkul loo xam ne fii ci une pour mu dox normal. yéen diw si organisé léegi yéen ñëppay dem ànd jàppale ko si combat bi keneen si organisé yéen ñëpp la gis ngeen dem jàppale ko si combat moo tax ma ne ko dafa ay hypocrisie moo am. waaw xam nga loolu daan am. ndax ñiy tëgg làmb dañ daan def bu ñu tëggee làmb woo la ne la Kandia ah bëgg naa nga jàppale ma wala ñu waxante ko daan ne ah nañ leen jàppalante wala nañ leen ñëw def naa nangam mais man awma temps xëy di dem ci koo xamante ne bi néew ma kaay jàppale ma néew ma kaay dimbale bu boobaa damay sangu ba set ndax damaa bëgg làmb bu ngoonee ma ñëw dugg esta toog seetam su paree dem ñibbi ah, ba pare gis nga nit il faut des fois da ngay dégg ko ñuy utiliser moo gentleman wala grandeur mais loolu ça se dit pas ça se ça se montre dañ koy wane dañ koy loolu ni ñu koy jëfee mooy soo amee loo war a wax kañ bi nga wax mais làmb dama ne la pour ñu nekk nii day jafe. yéen yéen promoteurs yi ñoo ñëpp. ah déedéet yaa fi toog yaay promoteur yi man promoteur laa wax kon balaa ngeen def lii ñëw ci làmb. Eh, déedéet man man laa la wax man bi ma ñëwee si yàgg na. dama ne dañuy waxtaan fële ba instanté ndax maa yow bi ñuy commencé commencé wuñu instanté ca sama commencement nga commencé dama ne la. yow même bi ngay ñëw ci làmb air de solidarité ba ci war a am man 6 décembre 2006 laa dugg si fekkuma air de solidarité mais seulement ñee kenn ku ci nekk dafa comprendre woon ne au lieu di am kenn ku ne toog sa rox jàpp sa nañ fi association. boo waaw dem bay wax sa association kon lu mu jëriñ. jéemoon nañ fi association boo xamante ne bii yàlla dogal na suñu borom ñu nekkoon ci ñu daan jëriñante daan jàppalante. waaw dem ay tabaski ngeen jàppalante ay xar a de suite. daan jariñante daan jàppalante daje fi tëgg benn làmb pare am benn budget kuy tëgg ñu yëkkati làmb jox la te man association boobu bokk naa ca ba génn bi ma cay bokk nekku moom pour daaw ma tëgg làmb musu xaalis bi ñu daan yëkkati di ko joxe man musuma ci jël te kenn musuma koo gën a bëgg association bu Pape defaa Fall dirige waaw nit musuma koo gën a bëgg ku ci sonn sonn naa ci ku ci wax wax naa ci ku ci def def naa ci ah pourquoi kenn yëf ci la non non booba tëggu ma bu ma tëggul lu ñu may joxe. kon association bi kon nañ génn nii. non association bi moom wax dëgg yàlla man bokkutuma ci yooyu parce que man nekkatuma promoteur. ndax association bañ koy créer man maa ko créer ak Jax production ak Fallou Faye mi ñu fekk. stade Léopold Sédar Senghor fi ñu toog fi lañ ko créé te li may wax ci télé laay wax ñi may waxal ñu ngi dégg kenn jógewu bi ñu ko créé ba pare wut njiit jiital ko topp ci ginnaawam di ànd ak moom. njiit ko fakkasal Pape Abdou Fall. ah doon xam ne xamuñu njiit bi. <laughs> ndey Kumba ñu jël Pape Abdou Fall. jiital kay. mu nekk suñu njiit ñun ñëpp. Mm. ñu topp ci am te man musuma ko fakkasal. musuma def lenn loo xamante ni dafay nuyu image président bi mu nekk loolu dooleel ko jàppale ko ci comme ñëpp nag ñu bokk ci association bi ni ko doon defee kenn ku ci nekk jël. la nga am ci ci ci ci personnalité jël lépp tibb sa bas jox jiital ko topp ci ginnaaw ñuy dox di dox association di jur ay njëriñ di jur ay njëriñ ñuy jàppalante dem fii dem fël léeg bu koor jotee ñu dajale ci suñu biir dajale ay teraanga ñëw jox ko Fatou Fall mi président Suukar Koor événement corona bi si mujj am jël nañ ci kees yi kenn ku ne cent mille ci promoteur ñu jox la dama ne. Ah, des na man des na des na des na des ah. plus topp tabaski. tabaski ban bi passé. déedéet xam nga da nga naan koor danaa jël yéen ngeen jël dajale liñ ci jël. sukkur jox ko Abdou Fall. moom tamit gis gisoon naa mu jëloon ay xar mu may leen. waaw no mais boobu association bi sax yaakaar naa amagul kees. ah man daal man daal gis naa ay xar daal mu may ay xar. non loolu benn yoon la am. yaakaar naa c'était en 2014 non non. déedéet la wala 18. Mm. yàggul de xar yi yàggul. mais loolu man maa ko jiite maa ko coordonné ah ok. loolu bi muy am man maa ko coordonné. man maa dem fi xar yi nekk su ma ak Aline Gueye xaw ma daal xaw ma je sais pas ñu dem foofu jël xar yi kenn ku ci nekk ñu jox la kenn ku ci nekk ñu sant ko gërëm ko. parce que loolu teraanga te teraanga nit ñoo ko ci. man dama ne waxuma kenn joxuma dama ne bi may bokk ci association bi ñuy yëkkati kuy tëgg di la jox mais man tëgguma ku tëggum nu ñu lay joxe. mais saa yu masaan a génnee ne cent mille francs yi dañ koy jox nit mais man sama wàll ñëwul. ñu ànd ci jàmm ak salaam mais dem nañ ba ci biir du man kenn ku ci nekk mën nga dem ba dootoo gis sa bopp ci biir dama dem ba man gisatuma ci sama bopp ci biir mais ma delluwaat toog teew du ma séq ak ñoom jàmm parce que dama séqoon ak ñoom jàmm te association am waaw léegi waaw ba ba am benn question yéen association bi ni ngeen ngeen di jàppale affaire ba te pourtant dama gis ay promoteur du xuloog ay yenn acteur làmb te du ma gis association dox si tànku jàmm. comme kan. te bu si mujj rek Gaston ak Père Bécaye. ah non xam nga nag. dox léegi la moo tax yéen doo leen dox des si ay jàmm defaa fois gis benn promoteur xuloog benn morom promoteur bu ni zip bëri na fi. man sama gis-gis dox jurul médiatiser man Kandji li may def lu ma ko médiatiser. parce que ah léegi loolu loolu moo xew léegi. mais loolu daa am ci ñum xew mais xewut fii ci man. kon loolu dafa stag am. man dama si xër relation békaay relation yoo xam ne su Kandji dee 100 pour cent ci làmb 80 yëpp békaay. parce que ba micro jafee la ko jël jox ma ba xëcc toog sama wet jafee la jël xëcc toog bokk ci ñi ma njëkk a gëm imposé ma nit ñi ba nit ñi xam ma kooku rus naa mu ne ci dara ma di ca ma ne tekk di xoole ku waxul rekk ki ne di rien rek. comme ça waaw. woo naa âge la ma ca mën a wax te xam ko ca wax naa ko père lañ mën a siq ma a lañ siq man a moom garçon muy diggante papa ak doom wax naa ci sama xalaat. mais nit nag doo wax ak ay kilifa génn naan wax naa ak def naa ak maa ngi wax pour man le tigre n'a jamais besoin de déclarer sa tigritude <laughs> amul njëriñ looy di médiatiser di wax. ah dama gis que nit ñi di def léegi loolu. dafa am loo xam ne seen naturel xoolal keroog bi mbir xewee Gaston ñëw jaale si Bécaye parce que Gaston noonu la toll nga Bécaye na mu waxee. Bécaye noonu la toll dafa am yoo xamante ne bii nit maanaam yëfi doomu aadama la ak moromam. yëfu nit la daal mais lu ne bis ñëw ñu ne kàcc mais toogal seetaan dañuy ñëwaat parce que ñii dañuy war a ànd te dañuy ànd parce que dafa am lu jaar ci diggante bi noo xam ne Gaston mënu ko fenetal Bécaye mënu ko fenetal te loolu ku ci tëdd sa xel dem ci ci teraanga yuy dox diggante Bécaye ak Gaston dox diggante Bécaye Gaston ak Bécaye mais loolu jërul nit di ko dox ne ci télé yi di wax maa ngi dox ak pour quelle raison amul njëriñ am na kilifa yooyu saa yooyu ñëw di dox médiation ci ñoom boo ko si wanee ñu ñu yëri parce que jëru ko nit mun nañ daje ci suuf ma woo la sama bureau nga ñëw Pape Moudou ñëw ñu ja defaral leen ba ngeen nekkaat ci jàmm ñu génn dem te kenn du ko xam. ok loolu moom am na solo. ku ci médiatise rek am na leen loo ci bëgg loolu loolu. comme lan. am na mën nga ci bëgg leen. loolu maay dox. dem naa wax naa nee nañ lii dinaa def nii loolu kay bëggoo ci da cee bëgg leneen xanaa. Mm. Euh, Kandji euh, nag nga gisee tey jii euh, ni wax naan làmb ji dañ gis mbër bu ñëw. indi koo xam ne mooy gérer mystique am sol kagul déjà kagul yow d'accord nga si wala d'accord aussi. non xam nga man en ce qui me concerne man sama bopp ku sol kagul la ku sol gane la ku sol tiré mais dafa am loo xam ne dafa am koor bu mu aar ah bu mu bu mu bu mu ñu ko bokk voilà ñoo xam ne ñoo war a saytu ne kii boo demee hôpital da ngay ñëw urgence urgence ñoo lay xool xam ne dañ la war a inter entré wala dañ la war a defaraat bàyyi la ñu dem CNG moo tënk ay règlement tëree boo ko solee boo ñëwee du CNG rek tere GMI ñoo naan la tëree du dugg ci stade bi génn kenn ku ci nekk dafa am loolu moom léegi na kañ su bëggee intervenir ci loolu day bàyyi domaine am dugg ci domaine boo xamante ne bii mun nañ ko ci néewal doole te du ko jar man pour man kagul ou pas kagul c'est le CNG kii est l'arbitre bi war a sujet que ni conséquences yi lañ ciy bañ ba tax bëgguñ mu dugg wala conséquences yi lañ ciy nangu ba ñu bàyyi ko mu dugg mais ah, li ci am importance dëgg du ay kagul ak ku sol kagul ak ku solul kagul man loolu dama gis ñu koy def ay débat mais loolu du débat. ah tax na du dama gis ne làmb am na yeneen priorité yu dul nekk fii di débattre ci ay kuy sol kagul ku sol. waaw léegi lan mooy priorité làmb. man li ma gis mooy nañu xool promoteurs yi fi nekk nan lañ leen mën a encadrer ba làmb ji ñuy tëgg ñu gën ci gis seen bopp. mbër yi nan lañ leen mën a encadrer ba làmb ji ñuy bëre ñoom ñu gën ci gis seen bopp ndey kumba ñaata promoteur nga xam. ci làmb ñu doon tëgg làmb def leen loo xam ne tax nañ ñu bàyyi ñaata mbër nga xam ci mbër yu doon bëri ñu ñëpp ña nga Amérique ñii ña nga France ñii bàyyi mbër moo ci waxal contrat bu voyagé dootoo ko gisaat léegi loolu lañ war a jéem a lijjanti fan la problème bi nekk ñu jéem a seet nuñ koy saafaraa ndànk-ndànk ba mbër mi sawar a toog nga dëggal ko mu génn voyagé ñëwaat bëriwaat. mais kañ promoteur tamit ñi ngi nii au contraire am na yenn promoteurs yu bees yi ñëw ana promoteur yi génn man de man gisuma fi ñu génn de. ñi bàyyi mm. xanaa ne ñi bàyyi ñëwaat Gaston bàyyi na ñëwaat Aziz bàyyi na ñëwaat après mu demaat ainsi de suite yow dem nga ñëwaat déedéet yow dem nga non ñëwal nga après demaat déet musuma ñëw demaat ne dama ne ñëw nga dem te xam naa yaa ngi ne léegi il faut jamais dire jamais mën nañu am nañu xel xel bu gàtt ne di nga ñëwaat non xam nga lu may bañ am nañ yaakaar man daal fii kenn laa fi gis daal ñëwul mooy sooy bu def naa sooy bu laa fi gis koo xam ni ñëwaatul après ça ah, gis mu kenn ko ko bàyyi de tere ci la ñuy waxee kenn du man naa laa limal fukki promoteur yoo xam ne man ak ñoom ñoo nekk na woon ci làmb te bàyyi nañ limal ma ñett non du lim kenn ah du ma tudd benn tur xaaral rek ma wax la Petit Mbaye waa xaaral sëbu xëy na mën a tur ah ma ne ñaar yooyu laa fa gis ko moo tax ma ne man eh, moom la laa eh, ñaar ñooñu laa fi ñoo xam ne bàyyi nañu làmb ma wax la li gën a garaaw ci làmb ndey kumba bu koy tëgg ba tëggatu dañ naan mënatu nit ñi yemuñu am na ci ñoo xamante ne bii li tubaab di wax s'abstenir man nañ ko ci lépp lu ñuy dugg mu dem ba lii bëgg leen a yóbbu fu leen neexul ñu taxaw affaire bi du question man parce que man bi saa importe peu li tax mu importe peu mooy ndey kumba bu yoroon ni milliard moo koy lekk ak njabootam ak keneen ku ci xaj mu dimbale la bu ñàkkee ay milliards moo ak njabootam ko yëpp parce ñoom ñooy ñëw di ko dimbale wala ñooy xam ndey kumba sonn na wala sonnut mais Sénégal xam nañu wax nit ku dañuy ñëw fekk di la xosat di la lëñbët di la xosat di la lëñbët jëru ko da daan tëgg gis nga tëggatul rafetal njort ci moom jàpp ne kii dafa dem ba làmb du ko mu dem toog mais saa yu dara amee la ñuy njëkk xalaat mooy lu négatif sooy bu boo ko gisoon fi nit ñi da ngay xam ne ci lii mu nekk moo gën téeméeri junni yoon ci lu ma mës a nekk ndax man damay liggéey moom su ma soxlaa kaw lu ci bari daf ma ko jaay affaire bi du foofu xam nga ndey kumba fan la affaire bi nekk su ma lay gis ba gisatuma la ah soo bi nga lim de li limoo keneen ki de non limu moo ko de yow yaa ko de waaye kanji promoteur CNG nu mun a jàppale waa promoteur waaye waxal dama li ma jàpp mooy il faut ñu jéem a xool suñu mbir yi yenn xalaat yi ak yenn wax yu négatif yi nan lañ ko ci génnee ça veut dire nit ku ci nekk ña ngay jéem a seet moo buñ la mën a wax bu la hmm. blessé ça commence par vous ok ah. léegi yow CNG nag nga mun ne wax ne CNG dafa la mën a jàppale promoteur yi jàppale mbër yi nga xam ne dañoo dañuy jël contrat dem Europe wala États-Unis dem fa toog fa yooyu promoteur nga xam ne dagg mbër yi pour mun a am fonds fonds de caisse. CNG CNG léegi kooku naka la mun a jàppale ay promoteur waaw non CNG gëw ma ne man dafa am lu ma dégg Bira Sène wax te man ci loolu laa dégg d'accord mooy suñu appliqué règlement dégg dagg dootu am dont yombul donc man gëw ma ne CNG am na intérêt taxaw di dagg pour am fonds de caisse. fond de caisse kenn ko ñuy dagg dañuy justifié xanaa dañu lay daggee. ah bien sûr dagg. jeex na léegi CNG su woowee mbër ni mu ko mën a jàppale mooy yéen dañu gis ne làmb ji gisatu leen seen bopp ñu ci bëri lu tax ngeen di génn mais mbëri dañ leen wax seen problème ndax li leen gën a naqari dagg bi la CNG wax leen leen moytu leen lii bu leen def lii bàyyi leen lii. est-ce que y a pas trop d'interdit ba ñoom tam gisatu seen bopp ils préfèrent dem foo xam ne. suñu demee nga xam ne dañoo bëgg làmb Kandji en tant que amateur daf ci gis toujours loo xamante ni mais maam njambaan bu ma saan dugg ci làmb yor jum taal ko bu paree fayaat ko loolu beneen affaire Tafa Gueye bu ma saan a sotti koo soow yor jaww jël njaq dóor mais loolu beneen affaire Ama Balde mu yor di liitam jaayu dem ñëwaat loolu beneen affaire yu ci bëri dañ koy interdire mais yooyu su amee ndey kumba ñi ci war a wax rek nañ dem wax ak ñi ñu war a waxaat. ah kon kay yéen a war lamb li nga wax nii yëpp. yëpp CNG moo ko fa dindi. man xam nga man mënumaa woo mbëri ne dem leen wax ak CNG. nga waxantee manager yi. man mënumaa woo manager yi dem leen manager yi def nañ seen assemblée générale bërki démb ñuy saluer Babou bi nga xamante ne bii di ko ñaanal yàlla moom tam mu yàgg fi téwér moo fi jóge ak Bourkhane waa dañu koy ñaanal yéen bi oyof ci ñoom làmb il faut ñu dem ba benn moment boo xamante ne bi njiit yi jiite ñooy am esprit boo xam ne mën nañu yaatal mën nañu xam ne àdduna dafa am fu mu nekkoon mais jóge na fi mi ngi ci leneen di bind ay correspondant di dem di toog CNG di leen wax seen ay problème parce que tubaab këyit la xam bindoon naa la tontu woo mais moo tax ne lu xew rek nga génn parce que man su ma toogee naan waaye CNG li ñuy def du yoon waruñoo def li waruñoo def la lu muy faj. fajul li faj dara mooy yow mi nga xam ne jàpp nga ne liñ la def néexu la nga dem ca ña nga war a waxal waxal ñoom ndey kumba man li ma gën a ragal. mooy nit ku taxaw ci télé di xas nit wala ngay wax ci nit loo xam ne yow te ñi ci ëpp li ñuy wax maîtrise wuñ parce que des fois ñu dugg ci loo xamante ne bi koo ci woo ba ñëw nga taaj ko wax ko da ngay gis mu ne noo xamee ma ko fekk yow li nga wax nga ko ba pare te ñi ngay waxal ay do ay ay ay papa jàmbur lañ yor ak njaboot nga war leen tuuraale xam ne wax jii suñ ma ko waxoon man nu muy mel ci ma hmm. mais CNG man gëm naa ne yaatal ak doxal rek moo leen ñor mbëri itam bëri dong lañ bëgg réussir ci làmb képp lañ bëgg mais loolu il faut ñoom ñii nekk ci seen biir ñuy communiquer ok mais lu ñu dese si waxtu parce que pratiquement jeex na noo gisee combat Boy ñaar Balla Gaye. boo xamante ni bii lu ciy sotti njëriñal làmb lay doon. waaw. ndax amateur yi bëgg nañ ko amateur yi ñu ngi koy xaar booy ñaar dafa am fu mu toll am fu mu bëgg dem Balla Gaye dafa am fu mu toll am lu mu bëgg a wane. donc ñoom ñaar bu ñu dajee yow wóor na ne di nga gis bëri di nga gis ambiance te di nga gis mbooloo moo xam ne promoteur bi dina ci gis bu kon njëriñal làmb lay doon njëriñal làmb mooy amateur bi ci bari bu neex te dina am supporter yi kontaan ci tous mu neex te dina am te mbooloo dina fa bëri promoteur bi kontaan loolu la njëriñal li ci baax nag mooy ñiy nekk ci ginnaaw mbëri di xamal mbëri ne lii du guerre benn bis la bu jeexee jeex la ndey kumba yéen tubaab bi dañuy wax ne sport dañ ne esprit sain dans un corps sain mu jur sportif léegi loolu warul ànd nag ak lenn loo xam ne day indi ay animosité ñi ànd ak Balla Gaye jàpp ne waa kër Boy Niang seeni noonu lañ ñi ànd ak Boy Niang jàpp ne waa kër Balla Gaye seeni noonu lañ loolu du noonu. est que ñuy ànd mbëri des fois yoo xam ni après ñoom ñoom si seen biir supporter dañuy noonoo te pas seulement ñuy ànd mbëri de des fois mbëri seen discours day pousser que ñoom si si ñuy ànd ak ñoom dem euh, dem si violence. par exemple man mi nga xamante ne am naa droit am naa baat ci Boy Niang. loolu laa bëggoon wax sax est-ce que yow loolu sadaq bi nga xam ne moo nekk si ginnaaw euh, Boy Niang que yow loolu noonu du la handicapé. non man dama ne man mi nga xamante ne am naa baat ci Boy Niang am na ci loo xamante ne Boy Niang ñi mut gis génn dem wax ko te tooguñu bañ na ko waxal lii bul wax lii dafa nekk am na ci loo xam ne su ko waxoon tey du yendoo jàmm ndax fu mu nekk ma fekk ko Ndeye Coumba dafa am yoo xamante ne bii il faut de moo tax li ma doon wax léegi dafa am important ñi ne ci ginnaaw Ndeye Coumba est-ce que Ndeye Coumba Kandji mi ne ci ginnaaw moo war a ne ci ginnaaw parce que mënoo ñëw yow nekk ca kaw a kaw a kaw ànd ak nit koo xamante ni bi yow yaa koy jàppale pour mu yëg ci kaw mu bëgg di la digal ngay def di la tere ngay bàyyi il faut nga dem seeti benn ndey kumba faal boo xamante ne bu dee looy jaay mool gopp ba pare di la dimbale te yàlla tax te man laa wax dëgg kooka nag nana na la del communiquer nii bul wax lii bul parce que communication soo gisee tubaab di ko wooteel budget di ci fay ay millions ngir entreprise am communication ba mm-hmm. mais dafa am solo ci nit mais léeg-léeg nit wax da ngay dal sa nopp parce que dafay yóbbaale ñëpp. ça c'est vrai. làmb bu bëri na ñu ciy wax nañ leen waroon di fay ñu nopp parce que xeeb làmb ci ñoom lay jaar man booy ñaan am na ci loo xam ne ñemewu koo wax parce que xam na ne su ko waxee du yéen doo jàpp mais keneen ak keneen suñu defee noonu keneen ak keneen suñu defee noonu mais da ngay xam ne nit ñi ñoo toll noonu ndey gis nga bu ñu demee ba joxe jot li ne sa poche nga ma mën a jox. loolu bu jëm jotee nag yow li nga tool rek ngay jëfe bien sûr dafa am ñooñu suñu waxee rek da nga xam ne ñii nii lañ toll. Ah. dafa am ñooñu nag neex na ñoo jubanti. mais bala Gaye Boy Niang daal làmb la joo xam ne làmb ju neex na comme Modou Lo ak Gris ni mu mën a doonee làmb ju neex Gris Bordeaux Ama Baldé. Ama Baldé di ci ñaanal tam promoteur bi Ibrahima Diop. Hmm. yàlla defal ko ci jàmm il a osé. loo xamante ne bi c'est pas facile. ci promoteur buy door a ñëw. am un dem ci sommet boobu yàlla na ko suñu borom defal jàmm. espérons dina ko dina ko eggale rek. lim ci bëgg. du am ay galgal. yàlla na ko ci yàlla dimbale. amiin galgal yi moom dana ci gis a gis a gis bay bëgg a <laughs> mais li ci am solo rek mooy nit ki ci boppam dans un premier temps yaa ta personnage d'abord. Mm-hmm. xam li ngay def li ngay dugg nga teg ko ci baas bu leer ndax bâtiment fondement ci bu sol boo amee fondement bu baax leneen li ci des rafetal teg ko fu baax wax ñi nga war a waxal ànd ak ñi war a ànd yàlla defal la jàmm. parce que làmb moom amatul sant def loo man wax loo man la boo tuddee nee na. ak ki nga xam ne mooy Bombardier. Salaan Salaan défi la ci Tafatine. défi ah moo ko daanoon. waaw non xam nga daf ko daanoon par décision. ah mais daan la rek. waaw xaaral non dañuy waxtaan. boo ma bàyyee ma développé rek wax ji dana rafet. waaw vas ah ba léegi wax ñaaw fi de. boo ma dogandoo day mel damaa saltel victoire Tafa. ah de de waaw waaw baax nga def xamante ne. ndeykum ma daf ma defal loo xamante ne ba guuf tamit wàllu ma ko ba ba lan di wal. ba bufta bi di wal. loolu. maanaam ba adduna bi tukki. waaw doo leen ba bi tukki rek. ñu ne bufta bi wal waaw ko sentir rek laa ko wax. c'est pas ah, ko rek du ma waxee loolu. mais ñu bëri xamul bi dégg nañu. waaw dama. ñëpp mënut a mënoo wax ñëpp dégg ko. Tapha Tine sama papa dafa hmm. mu jógee Dakar ñëw ba Touba njaare si ma. loo xamante ne bii daf ma marqué mënu ma ko fàtte. moo tax dama koo teg foo xamante ne bii. ñu te mbokk bawal bawal la nag man jolof jolof laa Hmm, dawal a dawal. man de man maa ngi dëkk dëkk bu ñuy wax Ndaraame Jolof. voilà askan wi maam ma Ndaraame xale sama maam man Jolof Jolof laa. bool bool nag dama cee saf saf ba tax ku ma gis teg ma bool la ndax maa ñoom benn lañ. Hmm. mais tafaatin ak. Euh, euh, Bombardier soo déggee ma wax loolu. tafaa dafa am fu mu jugee ci combat ak Boy Niang am lu làmb di xaar ci moom mu war a bokk ci ñi nga xamante ni bi ñooy téye làmb ci te loolu li ko mën a may mooy daan Bombardier moo tax ma ne défilé ci moom Bombardier egg na sommet. fi mu waroon a yegg. na plus rien à perdre quoi. il n'a plus mm. li mu war rek mooy tendre pêche xale yi ku ñëw mu may la sax am ca lam tey am ay effort moo xam ne dama ko naw Bombardier su communiqué nga xam ne nit dëgg mooy wax. te yooyu làmb daf ko soxla ndey ko billaahi léeg damay toog ba mu yàgg rek ma jékki-jékki def nii si moom parce que da ngay gis kuy wax wax joo xam ne. da ngay rus ci toog bien sûr. <laughs> loolu nag li koy waral mooy koo jekku ne ko am. dem di jëli nit ngir sa poos parce que waaj damay may dara waaja day wax ba wax pinc woo xam ne yow sa bopp après dalay dalay endommage te doo ci man dara te xamoo ci dara. ñu ñu jeexalee na ak Modou Lo Modou Lo ki mu waroon bëree moom am na combat mais Birame Gningue mi nga xam ne mooy parrain am nee na Modou Lo moom utul combat ak kenn Modou Lo euh, Ama lay xaar kaawu Modou Lo moom loo siy wax. waaw non loolu nag Birame am na ci benn droit ndax mbërëm dafa gaañu woon suñ borom def na wér na xaw ma yóbbu na certificat guérison xaw ma yóbbu mais mi ngi ci en séance de réduction léegi ñoom sañ nañ ne ñoom mënuñu jëli keneen dañuy toog xaar Ama Baldé ba mu pare ñu programme seen dët bëri loolu kay dara nekku ci loolu moom dara nekku ci loolu lu jaar jaadu la te lu valable la te lu man a nekk la aussi tamit. d' accord Kandji kontaan naa trop recevoir la sama émission ba Cumbukaay euh, ah Kandji ma bàyyi la nga tàggoo. waaw Ndeye Coumba ñu ngi sant bu baax yow tamit parce que yéen ci famille bi ngeen bokk yow man ak yow bi ñuy xamante. yii yàgg na. ba xam nga làmb li <laughs> ci dara ñaawul xam nga lu ci mm. gis ñaar ñoo xam ne bu lañ ne la xamante nañ sax doo bien sûr parce que ànd bi dafa dëgg. Ndeye Coumba day soxla kaañ. waaw ma dagg dagala tuuti rek kaañ yi dama gis les promoteurs yu bëri am nañu ay sit internet gis nañ fi Kéwalo mooy Fallou gis nañ fi euh, Assane Ndiaye Bawol TV Kandji TV moom kañ lay am. noo xam nga loolu lépp ci yaatal la li tax muy yaatal mooy soo nekkee ci mbir di ca yëngu ba jàpp lii war naa caa mën a contribuer génn ca loo xam ne war naa gën a mën a yaatal mais loolu encouragement la dañ leen ciy ñaanal rek seen studio yi ñu tijji dafa Kandji TV nag non Kandji TV ci man ñi nga xamante ne ndey ku ma day sol lu weex rek ma dem jëri diis bu weex te su ma xëyee dem ma tilim d'accord nga xamante ne bii mën naa faa sol yére adéquat ak li may liggéey mu def ko acca waaw di sant bu baax di wax ne fii ñu ma dalal sama kër la muy Bantamba TV yow mi koy def ñu am ay relation yoo xam ne extraordinaire la bien sûr euh, Bécaye comme ni ma ko waxee woon keneen nag keneen noonu ñoom Pape Mour di sama rak Modou Mbaye sama xuloo waale moom tamit di ma moom ñëpp lay xuloo <laughs> mais man noonu man moom yàlla daf ma dimbale man dama am ci moom cër ñu séq lu bare bare ba di waxtaan ci lu bare bare su ma weranteeg moom su ma woowee Bécaye danaa ma sama yónni woon Pape Mour danaa ma sama yoon ñëw ci yéen ñaar seen diggante kenn ci dugg. Mm-hmm. donc rafetlu nañ émission bi su fekkee dañ ci wax dara yoo xamante ni bi nit mën na ci gis boobu ñu ngi koy jéggal wala ñu wax ci loo xamante ni xëy na dañu jàpp ne leneen nañ tax ñuy wax taxuñoo wax. bien sûr ñun fi ne nii mënoon nañoo fereñkulaayoo nekk suñu liggéey bu dimanche jotee ñu def ko mais ndeyku ma dafa am lu ma làmb defal ma man ba ci liggéey bi may liggéey làmb dafa continuer ma fay mooy des fois ma dugg ci mbir samay kii war faa tardé nit jàpp ci defaral ma ko mu gaaw ndax kànji la. bien sûr loolu làmb moo ma ko may. kon munuma xarab làmb munuma bàyyi mais kenn du omelette te doo toj ne. il faut ñuy wax fi coow li nekk ngir ñu mën ko saafara pour làmb mën a jëm ci kanam parce que bu neexee ñun la neexal ndax tey ñun yor nañu entreprise boo xam ne fii bu ñu tëggee làmb bu ñu ci sentiré ñu yëkkati suñu weccet ak as néew jox ko jàppale ko. mu takkal ñu si baas. loolu lépp li tax ñu di ko def defuñ ko pour publicité dañ ko def ngir xam ne làmb dafa am lu ñu jox dañuy def nag saa yi ñu xëyee jéem a xool nuñ mën a delloo làmb loolu nga xamante ni César moo ko ak moo ko moom joxaat ñu ko ñu koy rendre à César ñu ñaan yàlla yàlla defal ñu jàmm. wàññi animosité bi. nañu génn yooyu ci suñu xel yooyu daf ñuy tardeel. daf ñuy tardeel daf ñuy tardeel. dañuy fii waxante lu ñaaw fii. gaaruwaale fii surtout. Ndeye Comba waaw comme ni ma la ko waxee fan yële passé déggoon naa maa ngi dégg benn coow diggante Amath Sène ak ancien coach am Pape Ndiaye ak ancien coach am Pape Ndiaye gis fu dara xajul kenn du fa xajal daal mm. te ay nit suñu àndee galéré ensemble nga jàppale nit ci moment yu métti nga jàppale ko ci moment yu naqari dafa am loo xamante ne bii même su amee du lu ñuy fisal sax ci kaw loolu dama leen koy ñaan Pape Ndiaye en tant que grand Eumeu Sène en tant que frère. Mm. dafa am yoo xamante ni bi jërul sax ñaawal. jërul toog ci presse di wax. parce que loolu l'instant la. Mm. sens la en yi parce que ba ngeen di ànd di guddi di bëccëg kenn ñëwul. bien sûr Papa Ndiaye daj ci Eumeu seen coono bu ne. Eumeu Sène ànd ak moom ñu ne ci ñun li ñu gis. bien sûr donc ñun li ñu mën a xam mooy na continuer rafet Ndeye Coumba dama ne Sénégal rek laa gis dëkk boo xamante ne Ndeye Coumba day sonn ci kañ ji daj ci moom bis ñëw kaañ yi jël lépp def ci benn kayit talañ ba mat mu sànni ci poubelle. ça c'est vrai. mel ni muy nit boo xam ne mosu leen séq dara mosu la defal dara te yooyu nit léeg-léeg mu sonn ci yow coono boo xam ne am na ci loolu boo ko fayee wala yàlla day leen yooyu amul njëriñ. amul njëriñ il faut ñu jéem a xam ne àdduna bi jeex na ba pare. ah saa yoo xëyee gis nit boo xam ne yaay ànd ak moom ba guddi jot ngeen tàggoo ñu xëy yow ba mu xóot ñu wax ba mu xóot ñu suul mm. mu wóor ne yow mi fi des dara bàyyiwu la fi te suba mën ngaa def noonu kon nañ ko rafetal. am di jéggalante am esprit de grandeur savoir nag raison garder après mu jeex. Mhm. ngeen jàll ci leneen. yàlla yàlla def jàmm ci réew mi suñu réew mi soxla na ko trop yàlla defal ñu jàmm président Macky Sall lii nga xamante ne moom la entamé ci ay sant suñu borom def mu doon loo xamante daf ko eggale jàmm ndax su ko eggalee suñu njariñ la parce que moom day dem te ñun ñoo fi nekk. di bien sûr le Sénégal va rester. Sénégal va rester. Mm. ñu war a xam ne kenn amul ëpp dëkk bi te kenn mënut a génn dëkk bi. ñuy waxante lu ñaaw amul njëriñ ñu koy jëfante amul njëriñ nañ jàppalante jéggalante dimbalante te yàlla tax di sant nag waa Daaru Rahman da xam ne fa de dëkk mm. waa Ndaraame Jolof waa Cité Fadiaga ma dëkk dëkk fa ñoom dëkk bu rafet di nuyu waa Sacré yi nga xam ne fi laay liggéey mm. ah sant bu baax ci lii di ñaar yàlla defal ñu jàmm di nuyu famille yëpp ñoom Tafa Abdou Kañ ñaar suñu yaay bi suñu borom yàggal ko fi loolu te di wax ne kontaan nañ ci dalal bi lépp luñ ci wax yàlla na njëriñal làmb lépp loo xamante ne bii wax nañ ko te du njëriñal làmb ñu xam ne matériel doomu aadama la mais bëggewuñ ko woon noonu di wax ne promoteur yi daal nañ gën a jàppalante ci seen biir ndax man doonatuma promoteur lu ma cay wax damay rafetal rek mais su ma neexoon dama naan sama nga ñu nekkatu ci mais nañu jéem a jàppalante ci seen biir ñi mën a ànd jéem a ànd ndax man association bi ma bokkoon bokkutuma ci mais am na ñu ca nekk di doxal di continuer ñooñu xëy na ñoo mën a ànd yàlla na yàlla jàppale ca seen ab ànd lañ ca bëgg yàlla defal leen ko ñeneen ñi ànd feneen it yàlla jàppal leen muy ñoom jéyeeg ñoom laat ak ñëpp benn ndax kenn ku ci nekk tey ci fii nga jógee def fii ngir nit ñi mën laa nga mën a génn nit ñi xàmmee la donc comme taxaw nañ bis nag ci ay teraanga man danañ ko ma rus naa wax ci yow lu lu baax tey ci télé bi mm. suba ma xëy ñu gis ma non non bu boobaa dañ naan la kaay nga ñëw ñëwee la yow li nga wax démb ak li nga wax tey kii war nit ci ñaar yooyu te boobaa nit ki du ci kenn yow yaa ci kan lañ donc yàlla ñu yàlla defal jàmm. amiin sàmm ñu sàmm njaboot gi. CNG bi tam gën a solide gën a nekk ñu gën a suub gën a ouvert gën a ouvert. gën a jàppale mbër yi te man dama ci loo xam ne day gumba du jaar sax mbër mi di dem wool mbër yi ñu ñëw. bien sûr. nga waxtaan ak ñoom leeral leen bu ko defee am na ci loo xam ne buñ ko xamantoon suñ ko xamee dinañ gën a moytu rek parce que léeg-léeg mbër war a si ménage promoteur lay woo ne ko ban heure laa war a ñëw <laughs> te loolu du rôle promoteur faay yuy am ci côté bu ci nekk mais buñ complémenté rek parce que ànd complémentarité la mm-hmm. li ndey kumba manqué na ko kanji am bu ko defee ànd bi mën a neex yàlla defal ñu jàmm làmb ji gën a dox ca amin donc ça été vraiment un plaisir de recevoir ki nga xam ne mooy kanji kanji production ex promoteur léegi ancien promoteur mm-hmm. nekk si business yi ah maanaam daal képp ku bugg ay carreau ay fer <laughs> ci yooyu daal. bâtiment daal ah ci élément xam naa élément sama caméra bi temps yi dafa nekk si fondement. <laughs> xam naa si jógee fii dina waxtaan ak yow nga dafa ko ay kii daal prix bu xéwale daal. <laughs> ko di bu xewele si si li nga xam ni moom mooy tabax bi muy waaj a def ah, di nuyu ki nga xam ni mooy Pa Modou ma doon coordonné li nga xam ni mooy émission banta Bantamba Cumukaay di nuyu sama kamara man borom ñaari galon yi Elimane ak ki nga xam ni mooy poulain bi temps yi moom dafay def stage ah waaye nag moom mooy loolu mi ngi dox si tànk Pa Modou muy Pape Omar Mbaye di nuyu ki nga xam ni tamit euh, mooy euh, Euh, Asta Ndine DG Brahma Cheikh Khadija Diallo mooy xam ne moom moo sponsorisé émission bi maanaam dàll yi kañ soo jógee jënd si kañ yi marque Brahma benn euh, benn ndaw bu nekk itali sénégalais la. moo euh, moo émission bi Brahma marque dàll boo xam ni am na couleur yëpp. am na li nga xam ne mooy pour góor am na pour jigéen ah yow soo paree sax après nga sol ko soo demee Touba ba ñëw sooy dem chantier mu nga ah, sol si dàll ah couleur bu nekk am na pour góor am na pour jigéen ah benn sénégalais bu nekk Italie la mais donc si ay wàllum euh, équipement daal lay dox daal blouson ak yooyu ah, moo sponsorisé li nga xam ne moom mooy émission bi di ki nga xam ne mooy Cheikh Ahmed Tidiane Ly depuis États-Unis je lui fais un gros bec eh dinañ jox dig daje si beneen ñoon si beneen émission Bantamba banta Bantamba TV jërë ngeen jëf. ma lambaay yaa ngi lambaay. birandu baa ngi ci mbul. maa jooja degen ma ca ngoonan lu rëy la maa jara baax ñoo jara falal ñoo jor sax yu tàkk ñoo jara way te ñoo di mu waagu ñaay gisal.